ci baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru uh, bés bi lu bees daal dinay am ci uh, mbiru Pape Alé nga xam ne uh, dañ koo tegoon loxo ni ki juróom-ñett juróom ci weeru novembre bi ñu génnoon daal di koy tuumaal ne dafa génne ay dossier militaire yoo xam ne dafa confidentiel waaye tamit dafa génne xabaar yoo xam ne jàpp nañ ne wéru looloo tax ñu daal di koy teg loxo nii ki tey nag juróom-ñeent fan ci weeru décembre euh, deuxième cabinet bi fas leen na ko déglu bu baax euh, ci lu jëm ci wàllum euh, dossier bi di fàttali rek ne bañ ko tegee loxo tamit ñu ngi ko yóbboon fële ca Sébikotane jëm fan yi sax gis nañ ne mu ngi nekk si jafe-jafe yu métti ndax dafa tàmbali woon li nga xam ne mooy grève de la fin loolu nag daal di koy loofal daal di koy sonnal bu baax ci kaso boobu nga xam ne ci la daal di nekk. waaye xabaar bi nga xam ne daal mun nañ ko tënk mooy tey euh, dina dégganteeg euh, juge du deuxième cabinet bi ngir ko mu waxtaan moom ci lu jëm ci dossier boobu nga xam ne lañ ko tegee loxo mooy génne xabaar yu wérul ak xabaar yoo xam ne euh, de kenn kenn génneegu ko te administration moo ko yor wala l'armée ba gannaaw loolu ñaar bi ci wàllum l'armée ba léegi ak jëwriñ juñ ko dénk muy ministre des force armées di maître Sidiki Kaba jaar bi nga xam ne daal dina koy jaar assemblée nationale daal dina ci Euh, profito dal di défendre bu baax la président de la république Macky Sall gannaaw ba mu gisee ne ñenn ci opposition bi dañ koy daal di tuumaal ne bëggul jàmm te daful dara lu jëm ci jàmm loolu nag avocat bi nekkoon assemblée nationale te jiite lépp lu jëm ci wàllu larme di Sidiki Kaba daal dina koy dindi bam euh, set wecc daal na leen sax di fàttali ne ñeent fan ci weeru ut bi ñu génn euh, Sénégal daal doon nay signé ak ñi nga xam ne ñoo newoon Casamance ci xeex ngir que ñu daal di dakkal lépp lu jëm ci wàllum. Euh, xeex ak gànnaay yi nga xam ne ñu ngi ko yoroon moom nag si di Sidiki Kaba mu jàpp ne yooyu ak yeneen yi nga xam ne président Macky Sall mu koy def ak gouvernement bi tax na mu jàpp rek ne ñoom si lu jàmm rek la ñuy dox waaye li nga xam ne opposition bi ñu ngi koy wax di leen ko tuumaal amul euh, tax Macky Sall jàmbaar la ci wàll woowu ndax mu ngi ciy bay waaram bu baax loolu kàddu yooyu daal la yëkkati ci jaar bi nga xam ne daal dina koy jaar ci assemblée bi gannaaw bu ko député daal di interpellé ci wàllum jàmm Sénégal ñu des si wàllum waajtaay FIDAK bi muy foire internationale de Dakar euh, ki nga xam ne nag moo jiite euh, CICES di Saliou euh, Keita daal di nay seeti ki nga xam ne mooy xalif général des Mourides niki démb alxames juróom-ñett fan ci weeru décembre doon sàkku si moom ñaan waaye doon wax programme bi ne dina am niki fukki fan ak juróom ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre wi waaye lu toll si ñaar fukki nationalité ak juróom-ñett dinañ fa teew lu toll ci fukki délégation gouvernementale tamit fas yéene nañ fa teew.